mbokk incha allah ñu ngi war a jël aaye quatorze ci suuratul qasas ci suñu borom di waxee ni walamma balaga ashudda alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom ñi ngi koy ñaan mu julli te suñu soppe ba suñu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di sant yàlla it ci wërsëgal gim ñu wërsëgal ñu daje tey ci ab néegam di fàttali ne yow jullit jóge woo sa kër jéego ay jéego yu gën a tedd jëm ci néegu borom ba jalla waala jéego boo ci jéego ñu faral la ca bakkaar bindal la ca tuyaaba yéega la ca benn daraja ca yàlla ba baa ngay yegg ca jàkka ja alhamdulillah xam nañ fi it ñoo xam ne ñi ngay jóge ci quartier yu sori lool di ñëw fii gannaaw ba yi deew jullit bégal ci ne toogoo ci kaw suuf toogaay bu gën a tedd toog ci néegu borom ba tiim téere borom bi di ko jàng loolu kon ay ngëneel la yoo xam ni yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko ñu ngi nekkoon ci suuratul qasas ci saar boo xamee ni nii suñu boroom mi ngi ko ubbee netti la ñu histoire yonent yàlla Muusa ak bani Israil ak fanjaar ak noonub yàlla ba di firawna ak i notable am loolu nekk benn bind boo xam ni jullit ñi dañ ci jëriñoo ba ila yawmi diin te mooy gëm ni ab jullit yàlla da koy nattu waaye nattu yow lu mu yàgg-yàgg mujj ga day nekk yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira looloo taxoon ba ñu jëloon ci ay bind insha allah war a jël tey fukkeelu aaya bi ak ñeent suñu borom yàlla dogaloon na ñu jàng yonent yàlla Muusa judd na firawna for na ko ci kër ga yar ko fa yàlla dogal na kii nga xam ne mooy yaayu Muusa Muusa dellusi waat na ca ay loxoom mu koy yar foofu léegi nag ñu xool ana fan la suñu borom di jaar ak moom Cheikh Ousmane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين دخل المدينة على حين رحلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى وكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم مني ولما بلغ أشده بم دمي بجت كتنم غا واستوى mu yemoo nekk góor gu mat sëkk aataynaahu xukman wa ilma ñun yàlla jox nañ ko ab atte te mooy xikma may ko it la nga xam ne mooy xam-xam kazalika najzi l muhsinin te naka nii it la ñuy faye ñépp ñuy rafetal wa daxala al madinata ala xiini gaflatin min ahliha noonu lu dugge ci dëkk ba ci waxtu càggante ca njabootu dëkk ba jamono ba ñuy sieste fa wajada fiha rajulayni yaqtatilaan mu fekk fa ñaari góor yoo xam ne ña ngay reyante ay ña ngay xeex haza min shiati kenn ki mi ngi bokk ci kuréelub Muusa ci ay farandom ay partim wa haza min aduwi keneen ka ma nga bokk ci ay noonam mu bokk ci aqbaat ya muy les coptes yi nga xam ne muy firaw nak notable am fastaxaasahu allazi min shiati noonu la ko sakkoo wallu ka nga xam ne moo bokk ca ay farandoom ala allazina min aduwi ca ka nga xam ne daa bokk ci ay noonam fa wakazahu muusa muusa dóor ko benn korfeñ fa qada alayhi mu jeexal ci moom ay mu daal di koy rey ci saasi qaala haada min amali sheytaan mu ne lii dee ci jëfi sheytaane la innahu aduwum mudillum mubin moom day noonu la buy sankaate bu leer ci na muy sankaate qaala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir lii mu ne ay sama boroom man day tooñ naa sama bopp yàlla jéggal ma fa ghafara lahu suñu boroom jéggal ko innahu huwa alghafuru rahim ndax moom kat mooy aji kiy jéggalaate aji kiy yërëm ay jaamam qaala rabbi bima an'amta alayya mu ne ay sama boroom ci xéewal gi nga def ci man falan akuna zahiran lil mujrimin du ma nekkati mukk aji koy dimbali ñeel ña nga xam ne ay kàccoor def ko ci bakkaar lañu mi ngi noonu mbokk suñu boroom tëb na étape jëli ñu fa Muusa delloo ci yaayam mu koy nàmpal indil ñu fi mu nekkee waxambaane ci digg kàttanam lu bari ci mufassiruuna yi ne booba am na trente ans moo tax suñu borom ne fastawa mooy nekk na góor goo xam ni gu mat sëkk la suñu borom nee na ca laa ko may attee ay muy ràññeeli lépp loo xam ni lu baax la ak lu bon la yàlla may ko xam-xam it boo xam ni dana ca mën a sukkandikoo ba mën a jaamu boromam jalla wa ada mu ne nii ma ko defele Muusa laa koy defele ñiy rafetal te it nga la way yow ndawal julit góor góor lul ci rafetal rafetal mooy lan mooy say xarit say way juru kum mën a doon bul fexe mukk ñu dugal la ci bokkaale ak sa boroom bul fexe mukk ñu sàggan loola ci jaamu sa boroom waaye itamit loo mën ci jaami yàlla yi ci lu baax def ko heure boo xëyee sa jubluwaay na nekk naka lay mën a jëriñi nit ñi bañ a xalaat naka lay jëriñoo nit ñi lii day amul benn jeune bu ci sax lu dul suñu boroom dana ko may atte may ko xam-xam te mooy al ihsaan rafetal jëm sa boroom rafetal jëm ci ay mbindaafanam boroom bi nee na noonu la Muusa benn heure sieste muy dox ci dëkk bi gis benn ci waa bani Israil ak benn ci noonu égyptiens yi ñu nekk di xeex noonu égyptien bi mi ngi lottal bani israil bi waa ji gis Muusa rek ne ko ay Muusa kay dimbali ma ndax Muusa ñoom ñépp dañoo jàppoon ne doomi firawna la ay firawna ko doomoo pour ñoom xamuñu ko ko jur waaye nag bi mu màggee rek la taxaw ci kanamu dëgg nanguwul kenn koo xam ne dana tooñ moroomam ci kanamam moo tax mu séen ko rek woo ko wallu Muusa it bi mu ñëwee xam ne naka jekk ñi nga xam ne mooy les coptes mooy al axbaat dañuy lor bani Israël làttiwul daa ñëw rek tëgg waa ji benn korpeñ waa ji daal di dee ci saa si te Muusa alayhi salaam suñu borom yàlla mi ngi wax ci kanam tuuti xaw wii la ku amoon kattan la benn korpañ la ko dóor rek mu dee bi loolu amee Muusa ne ah lii dee ci seytaane la jóge noonu doomu aadama la bu koy réeral te it yow doomu aadama bàyyil xel heure boo meree seytaane ñëw na solo la da ngay gis ci diggante boobee man ngaa def loo xam ne day yàq sa adduna yépp wala yàq sa diine yépp loolu tax a rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñu wax ni kenn ci yéen bu yégee ne mer na nay wax a'udhu billahi minash shaitani rajim aka bari ku mer rey sax doomam fase soxnaam wax musiba boo xam ne su fa jógee rek mu daal di koy rëccuwaat ñu ngi leen di wax ci tafsir yi passé kenn ci français yi bindoon benn téere mi ngi ko tuddee les trois minutes du diable pour wane ne am na ñu bëri ci trois minutes rek lañ def musiba boo xam ne nii yàq nañu seen adduna yëpp kon seytaane gi noonu am noonu la te bokk na noonu ga gën a rëy mooy fexe ba doomu aadama rey nit comme ni ko yonent bi alayhi salatu wasalaam nettali ci xadiisu seytaane buy wër doomu aadama yi def inspection bokk na ñaar ñu muy félicité ki ñëw na ko rey naa nit ki ñëw na ko xiirtal naa diw ba mu rey nit ak ki ñëw na ko fexe naa ba sëy sàngam tas naa ko ñaar ñi moom di leen di félicité kon moom noonu la bu biir waaye mu dellu ci boroomam daa ji ne ay sama boroom man day tooñ naa sama bopp te loolu mbokk mooy njël bi ni jéggulu reconnaître sa bakkaar soo ko defee rek yàlla subhanahu wa taala jéggal na la tooñ naa sama bopp ay yàlla yàlla nag ma baal suñu borom daal di koy baal loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoon xaritam ba abu bakarin sadiq na ko bay taaya di ñaan waxal allahuma inni zalamtu nafsi zulman kasira wala yaxfiru zunuba illa ant faxfir li maxfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim yàlla tooñ naa sama bopp tooñ yu bëree bëree bëri waaye nag kenn du jéggale bàkkaar ku dul yow jéggal ma jéggal nga bawoo ci yow nga ngi noonu te nga yërëm ma yaay jéggalaat yaay yërëmaat suñu borom mu ne jéggal naa ko ca moom mooy alxafur ca mooy kon keneen ku dul Muusa yit loo def boo tuubee yàlla baal la daa reynitoo daa njaaloo daa lekk riba da doon bokkaale da doon lu mën a doon heure boo tuubee tuub gu sell ci sukuraatoo yàlla baal la innahu huwa alxafuru rahim bi loolu amee Muusa alayhi salaam ne ay sama boroom xéewal gi nga ma defal te mooy may nga ma xam-xam yar ma yar boo xam ne nii yar buur la def naa njuumte nga baal ma bis ne ki tey day dogu naa ne dootuma dimbalee ci mukk ab kàccoor ci sama des sama dund loolu it mbokk mooy la nga xam ni yow ndawal jullit gànnaa yoo ko suñu yonent sallallahu alayhi wasallam dañu doon wax sa mbokk jullit boo tooñee dimbali ko suñ ko tooñee dimbali ko saxaaba yi na ko waaw moom mu tooñ ñu taxaw dimbali ko loolu day xam nañu ko waaye moom bu dee moo tooñ nag yonent bi mu ni yéen ñëpp dem leen téye ci loxoom nga ne ko diw yaa tooñ loolu la ñuy dimbalee mbokk jullit moo tax Moussa ni bis na ki tey du ma dimbali mukk ab tooñkat mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المؤمنين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين barakallahu fikum suñu borom mu ne Muusa alayhi salaam day fa asbaha fil madinati noonu la xëyee ca dëkk ba xaa'ifan yataraqab doon aji tiit doon aji kuy fuglu boppam fu ne mu fay nekk di geestu wa idha allazi fa idha allazi istansarahu bil ams naka noonu rek ka nga xam ne moo ko doon sakku wallu ca démb sa yastasrixu ma nga kay woo di ko yuuxu qaala lahu muusa noonu la ko waxe yonent yàlla muusa innaka la gawiyu mubin yow day aju ko sanku nga ko tar ku leer ni mu sankoo la falamma an araada an yabtisha ba nga xamee ni nii muusa bëgg na ci di jàpp ay jàpp ko kattan billazi huwa aduwwun lahuma ca ka nga xam ne noonu la ñeel leen ñoom ñaar qaala ya muusa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams noonu la ko mbokkum bani israil ba ne ko mayow muusa anak dang maa bëgg a rey ni nga reye woon bakkan démb in turidu illa an takuna jabbaaran fil ard bëggoo lu dul nekk koo xam ne daa mbëru ci kaw suuf wa ma turidu an takuna min al muslihin te yow day bëggoo di bokk ci ñi nga xam ne dañuy yéwénal wa jaa rajulun min aqsa al madinati yas'a noonu la ñëwee benn góor jóge fa gën a sori ca dëkk ba ma ngay daw qaala ya muusa inna al malaa ya'tamiruuna bik mu ne ko ay muusa notaabal yi day ña ngay diisoo ci sa mbir li yaqtuluuka ngiree ñu rey la faxruj inni laka min annaasihin génnal bokk naa ci ñi lay laay biir fa xaraja minha xaa'ifan yataraqab noonu la Muusa génn ci dëkk ba ànd ak tiitaange doon koo xam ne ma ngay fuglu boppam ay di laqatu qaala rabbi najjini min alqawmi alzalimin mu ne ay yàlla yal nag ma musal ci xeetu tooñkat bi mi ngi noonu mbokk yonent yàlla Muusa xëyaat na bi muy xëy mi ngi dox ci dëkk bi waaye xabaar tasaaroo na ci dëkk bi am na benn ci notable dëkk bi rey nañ ko xamuñu ku ko rey ñaar dong ñoo fekk mbir mi Muusa mi ko rey ak bani Israil Muusa nag mi ngi dox mi ngi tiit mbaa xabaar du feeñ bañ xam ne moom moo ko rey loolu bi mu amee ci la jàdd koñ rek gisaat même waa jam doon atte démb ba tax mu rey xëtt bi ma nga koy woo wallu Moussa kaay ki yaat mi ngi may lor Moussa nag mer na ko yow day ko sanku dëgg nga te moo ko xam ngeen wala fi dañ naan tombe waral ay gaaf yow démb rek ngay xeex fii ba tax Moussa rey fi ñit war ngaa deme ci da am keneen problème ba tax ngay wa wallu yow ku sanku nga ku leer ak sanku te nga waaye Moussa mi ngi jëm ca ka nga xam ne mooy copte bi pour jàpp ko rek waa ji nag comme Moussa da koo gëdd ca it ku doy waar la rek mu attaqué Moussa ah Moussa kon da nga maa bëgg a rey jàpp ne Moussa ci moom la jëm da nga maa bëgg a rey ni nga reyee bakkan démb waaw Moussa yow bëggoo lu dul nekk kuy mbëru ci kaw suuf Moussa bëggoo nekk ci ñuy yéwénal te it lii moo lay won li tax mu xeex démb xeex tey saf làmmiñ gi ak wax ju ñaaw ji ndax lii fayu Moussa la mi koy sauvé démb Moussa mi ko sauvé démb ba tax mu rey ñëpp amul lu mu koy fayee lu dul wax ju ñaaw ji bëggoo lu dul nekk ku mbëru bëggoo nekk ku yéwénal ah loolu nag bi mu amee xëpp ci bi nga xam ne dégg na loolu moom rocceeku daw ca pale ba ne hey Firawna gis nga sun mbokk bi Moussa moo ko rey nettali la nga xam ne bani Israël bi wax na ko bi mu waxee loolu nag Firawna nag woo notable yi ne leen kii moom nañ ko rey benn yoon donte na jàppoon na ko muy doomam waaye nag Moussa mi ngi exagéré nañ ko rey benn yoon fa ñuy décidé ne dañ koy rey mbooloo moo gis mbokk lu ñu doy waar doy waar ci mbon yàlla mën na caa dugal kenn ko baax looloo tax yonent yàlla Luut doon wax waa dëkkam alaysa minkum rajulun rashid waaye yéen dëkk bi yëpp amuleen sax kenn sax ko baax waaye amu foon kenn ko baax ñun ñëpp a bon loolu nag exception la waaye mbooloo moo gis yàlla mën na caa rax ko baax donte ne it mbooloo mu baax moo gis yàlla mën na caa rax ñu bon moo tax yeneen ci bàyyi salaam mbooloo mu amoon ay naafiq gis ngeen kon noonu la kenn rocceekoo rajulun ndax mooy rajulul mu'min bi yàlla di nar a wax ca kanam ca suratul ghafir wala keneen la ala kulli xaal daw na rocceeku fi garde yi jaar mu jaar beneen bedd daw ba gis Moussa na ko Moussa gaawal notable yi des dinañ dañ lay rey gaawal génn dëkk bi gaaw maa ngi lay doon ko lay laay biir ca la Moussa départ génn dëkk ba ànd ak tiitaange te it mbokk boo déggee ñu naan jullit yàlla rek lay ragal mooy yàlla lay ragal ci ni yàlla rek mën a dogal ci moom lu koy jëriñ wala di ko lor adduna ak alaxira amma bu dee danger réel ay agresseur ay jaan ay gaynde ak yu demee noonu loolu ragalu naturel la boo xam ne ni yàlla du ko toppee doomu aadama looloo tax Moussa mi ngi daw ak ragalam mi ngi it laqatu ngiree ñu bañ koo jàpp te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yàlla joxe ordre moom it fekk ni nii notable yi ah diisoo ba ne nañ rey Moussa noonu it la waa Quraysh diisoo ba ne Muhammad mi moom nañ ko rey benn yoon mi ngi noonu diisoo nañ ñeneen nañ ko tëj ñeneen nañ ko génne conclusion réunion ba mooy nañ ko rey comme ni ngeen ko yàgg a dégg ci xadiisa hijra yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla jox ko ndigal mu génn waaye nag jaarul ci digg mbedd mi dem Madina daa dem laqatu ji benn montagne bi ñuy wax gaaru sawru def na fa trois jours di laqatu ba baa seet ga daa di dal mu doog a génn doog a dem Moussa alayhi salaam loolu tax mu laqatu ba notable yi gis ñu ko waaye mu boole ci it ñaan yàlla subhanahu wa taala daa di ne yàlla yàlla nga musal ci xeetu toñkat bi gis nga noonu wax na sànq ay rabbi bi nga ma xéewal gi nga ma xéewal du ma dimbali kenn rabbi najjini min alqawmi zalimin nañu xool du tey di woo boroomam ba suñu darsi bi bi jeex mi ngi noonu Cheikh Ousmane ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تلودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يؤتي الرعاء قالتا لا نسقي حتى يؤتي الرعاء وأبونا شيخ كبير فقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين barakallahu fikum suñu borom mu ne walamma tawajjaha tilqaa madiyan bam demee jublu caw wàlluk waa madiyana qaala asa rabbi an yahdiyani sawaa sabil mu ne mën na am sama borom day jubal ma ca la gën a digg doomu ci yoon ay yoon wu jub wa walamma warada maa madiyan ba mu demee ba yegsi ca la nga xam ne nii moom mooy ndoxum waa madiyana ay teen bañ doon roote wajada alayhi ummatan min annaas yasquun ma ngi fa fekk benn mbooloo ci ay ñëpp ñuy nandal seenug jur wa wajada min dunihim imraatayni tazuudaan mu fekk fa gannaaw ñoom ñaari jigéen yoo xam ne ña ngay fekk ñoom seenug jur ngir bañ ñu jaxasoo qaala fa ma xat qaala ma xatbukuma mu ne waaw yéen ñaar ñii lan mooy seen lan mooy seen mbir qaala ma xatbukuma lan mooy seen mbir qaalata la nasqi qaalata la nasqi xatta yusdira riaau wa abuna cheikhun kabir قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ñu ne ñun day duñu doon mukk ñoo xam ne nii dañuy nandal lu dul ni sàmmkat yi dañ fay jóge sunu bàyyi nag dafa nekk mag moo xam ne mag bu mage la mi ngi noonu fa saqa lahuma noonu la Muusa nandale leen suma tawalla ila zil gannaa ba mu dem ca kër ga fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir mu ne ay yàlla man day ci lépp loo xam ne wàcce nga ko ci man ci aw yiw ku ko aajowoo la fa jaathu ihdaahuma tamshi ala istihya noonu la ko dikkale kenn ci ñoom ma ngay dox ca kaw kersa qaalat inna abi yad'uuka mu ñëw na Muusa sama baay day mi ngi lay woo li yajziyaka ajra ma saqayta lana ngiree mu fay la yoolub la nga xam ne nandal nga ñu ko ca falamma jaahu wa qassa alayhi alqasas ba mu dikkalee seen baay nettili ko la nga xam ne mooy nettili ba qaala la taxaf mu ne ko bul ragalati najawte min alqawmi zalimin mucc nga ca xeetu tonkat ya mi ngi noonu bokk julit Moussa génn na Égypte ma ngay dox jëm ca Jordanie fi ñuy tuddee Madiyana waaye xamul ban yoon lay jaar mu daal di ñaan yàlla ne yàlla day ci mbaaxam mën na am mu jubal ma la gën a digg doomu ci aw yoon te it mbokk heure boo jógee jëm ci dara ngallawaayi del sukkandiku ci sa boroom dee ko ñaan yàlla mu jubal la rawatina nag ngay jëm foo xamul looloo tax ba noonu mu wékkoo woon ci yàlla ak ñaan googu mu ñaan yàlla jubal na ko mu yegg direct Madina ci réerul njub googu it yàlla wërsëgal na ko mu nekk ab yonent avant muy delluwaat ca Égypte loolu kon muy importance ñaan yàlla ak wax yàlla ak wax yu bim ñëwee nag ca Madiana yegsi ca teen ba fekk benn mbooloo ña nga fa nekk di root mu seen ñaari jigéen ña nga toog ne ñoom di fekk seen jur pour ñu bañ a dem naan comme yeneen jur yi loolu it nga la waay yow ñu juddoo Dakar yaroo Dakar xamal ni xéewal gu rëy mooy nga dëkk ci kër goo xam ne nii am na benn robinet nga xam ne ku soxloo dem root ca loolu day xéewal la aka nag nañu dëkkee ci kër yoo xam ne salle de bain yaag roq yorqor yaag fépp am na robinet loolee mbokk mbir la moo xam ne ku ko mosoon wax sunu maam yi démb yi ay lépp lañ koy teg ndax ba suñ jamono tey jii da ngay dem ci dëkki kaw dëkk bi yépp ñoo bokk benn teen bu ñuy root bal ay dëkk bokk benn teen bu ñuy root Muusa dem ci ñaari soxna yi laaj leen ne leen waaw yéen lu tax seen jur gi ngeen leen di fekk ni ñu naa ñun ko dañoo bañ a jaxasoo góor ñi dañu bàyyi ba góor ñi dem ñu doog a ñëw root te loolu it mbokk julit galluwaay nañ ko bàyyi xel diine bu yàlla mësa indi dafa teqale góor ak jigéen duñu ànd ci lu dul sharia nangu amma nag bi ñu demee ba jaxasoo ak occident ñoom dañoo jàpp ne góor ak jigéen ñoo yem ca njàng ma ca sport ba ca lum mën a doon tey jii téere basket bii nekk suñu wet da ngay gis ay xale yu jigéen ñu toll ne seen ndey sol ay culotte jaxasoo xale yu góor yi di basket ça ne les dérange pas xamuñu sax ne am na lu ci nekk ci danger waaye ngalawaay dañu xam ne même bu dul diine ju sax sax sunu maam yi dañ doon teqale góor ak jigéen ñi ca seen lekkukaay yi ca seen toogukaay ya ila axiri bi loolu amee Moussa daa di ne baax na daa di dem daa di jël baag baag yépp rootal leen indi jox leen seen jur ñu daa di naan léegi nag xamu ci dëkk bi kenn mu daa di dem ca benn taatu garab daa dafay toog daa dafay wéeru xale yu jigéen ñi ñu ngi koy gis ba mu demee ca taatu garab ga wéeru fa ak coono ba mu dox diggante Égypte ba baa mu yegg si Madiyana xiif bu tar mar bu tar ila axiri mi ngi noonu ca la woowaat boroomam suñu boroom ay yàlla lépp loo wàcc ci man day soxla woon naa ko loolu it moo tax ba mbokk xam leen ni balance bi diine di peser doomu aadama yi wuute nag balance bi waa àdduna di peser jamono joojee planète terre ba ñu dajee ka nga xam ne moo ci gën moo yonent yàlla Muusa ma nga nee ca taatu garab ga tumuranke amul fu mu jëm amul fu mu fanaan amul lu mu lekk et pourtant mooy jaamu yàlla bi gën loolu tax yow ndawal jullit jaar ci ay coono bu mu tax nga jàpp yàlla dalaa fàtte jaar ci ay coono bu mu tax nga jàpp da ngaa yées déedéet ay nattalo yu la suñu borom yàlla di jaarale muñul muñ ko rafet dellu ci sa borom ñaan loolu tax Moussa dellu ci yàlla ay yàlla loo mu yónnee ci lu ma xetti rek soxla naa ko léegi nag xoolal yow mi jël suñu darsu tey bi Moussa ba mu reyee nit xaala rabbi woo yàlla yàlla jéggal ma ba muy génn dëkk ba rabbi najjini yàlla musal ma ba muy jëm madiyana ansa rabbi an yahdiyani ba mu demee ba tumuranke rabbi inni lima anzalta loolu tax ndawal jullit bul doxale sa diggante ak sa borom kenn bu mu doon abubakar omar muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril bul doxale sa diggante ak sa borom kenn heure boo jaaxlee neel yaa rab heure boo jàqee yaa rab boo defee bakkaar yaa rab boo amee xéewal yaa rab boo amee tiis yaa rab lii mooy la nga xam ne mooy mandarga suñu borom netti li wu ñuy histoire bi lu dul ñu jël Moussa comme référence ulaika lazina huda allah fa bi hudahum iqtadi ñii la yàlla jubal fañ jaaroon jaar fa gàllawaay nga bàyyi xel yow loolu ndawal julit lu bokk mukk ci niti tey yi nga xam ne lu leen dal seen xel de yar ci keneen ku dul yàlla abadan bul mel noonu mukk rabbey sama boroom loo ma yónnee rek ko ko aajo woola te it julit gëmal ni suñu borom mu ne yaa ayuha nnaas antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alhamid lépp lu ngeen am ci yàlla la jóge amul lenn lu yegsi ci doomu aadama puso la ba avion lu dul xéewul la gu yàlla subhanahu wa taala dogal ci moom borom boobu nag subhanahu wa taala ni ci jamono boobu rek la Moussa seen kenn ci ñaari xale yu jigéen yi ma ngay ñëw suñu borom ne mi ngi dox ci kaw kersa te loolu moo nekkoon mandargay jànq yu jëkk ya heure buñ mësaan dox di jëm ci ay góor seeni tànk day laxasoo ngi noonu moo tax borom dañuy dox ci kaw kersa seeni tànk day laxasoo laajal mag ñi nga xam ne ñooy fekkee démb xale bu jigéen daawul ñemee romu pénc dañ daan wiiri feneen heure buñ ko yónnee ci góor bàyyam ci moromi bàyyam ak ay lu mën a doon su ñëwee di wax day ànd ak kersa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan sahaaba yi daan wax ne moo ëppoon kerse jànq boo xam ne dafa nekk ci néegu yaayam sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokkaane kersa kersa baat la bu ñuy dégg mais génération tey xamatuñu luy kersa te loolu nag mooy baasu mbon yépp mbokk baasu mbaax mooy nit ki am kersa baasu mbon mooy nit ki ñànk kersa yonent bi alayhi salaam mu ne isa lam tastahi fasna ma chita soo demee ba kersa jeex ci yow lu la neex defal kersa ak ngëm yàlla da dañ leen a lënkale benn bu jóg day yóbbaale moroomam soxna si ak kersaam mooy jànq bi ak kersaam ñëw na ba yegg si ci Moussa fi wéeru ci garab gi nuyu ko na ko sama bàyyi day moo la soxla ndax dalaa bëgg a fay teraanga bi ñu defal dalaa bëgg a fay teraanga bi ñu defal ci li ñu rootal te loolu it mbokk julit gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ni man sanaa ilaykum ma'rufan fa kaafi'uhu ku leen defal njekk fay leen ko yéene defal leen ko njekk su ngeen amul njekk bu ngeen ko defee fad'u lahu hatta yara annakum qad kafaytumuhu ñaanal leen ko ba mu yëg ne seen ñaan bii kët remplacé na njekk bi su ma bàyyi nee na nga ñëw dalaa bëgg a defal dalaa bëgg a fay li nga xam ne mu nga ñu nàndale comme Moussa alayhi salaam tumuranke ne aaja woona mu dem wuy ji loolu ndax yéen a ngi fàttali kat ba mu demee ba jëmmi jamono ba ànd ak xadir bañ demee tumuranke ci dëkk ba ñaan waa dëkk bi ñun kat ay doxandem la ñu amuñu dara ndax du ngeen ñu may lu ñu dëkk fu ñu fu ñu fanaan ak lu ñu lekk waa dëkk ba bañ xadir dem fekk benn tappaat ay yu doon waaj a daanu mu yëkkati ko Moussa ne ko waaw bu la nekkoon laaj ci li pay waay ndax ñu am lu ñu añee xadir na ko fii laay tàqali ko ak yow ala kulli xaal Moussa noonu la jógee ànd ak xale bu jigéen bi ñuy dem ñu dem ba yegg si te waaj a nekk ca Madiyana mufassiruuna yu bëri dañ naan Shuaybu alayhi salaam la waaye ña dàq wax jooju ñoo ëpp ay lay Moussa fekkentewul ak Shuaybu diggante Shuaybu ak Moussa at lu jege junni at dox na fa Shuaybu da ngay gis ne mi ngi nekkoon jamono luut moo tax heure bu ñuy wax ci alquran danaan mi ngi noonu wa ma qawmu luutin minkum bi baid loolu moo tax kon Moussa beneen góor gu baax la fa fekk koo xam ne mi ngi woon ak diina ju sell waaye du woon Shuaybu alayhi salaam bi mu ñëwee nag ba netti lu ko ay jaar-jaaram mu ne ko ne sa xel dal mucc nga ca la nga xam ne mooy xeetu toonkat ya mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأمرني قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أنظر وأنا علي والله على ما نقول وكيل jazakumullahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ni qaalat ixdaahuma noonu la waxe kenn ca jànqa ja yaa abati stajirhu ay bàyyi kii jël ko jàpp ko muy surga muy nekk rek ab sa booy bu lay liggéeyal inna xayra man istajarta alqawiyul amin ka gën ci ka ngay jël mu nekk employé mooy borom kattan gu wóor qaala inni uridu an unkihaka ihdabnatayni haatayni mu ne ko man day dama laa bëggoon a may kenn ci sama ñaari doom yi kenn ci ñoom ala an taajurani samaniya xijaj ci nga nekk di ma liggéeyal la nga xam ne muy juróom ñetti at fa in atmamta ashran fa min indik heure boo ko matali fukki at nag loolu moom ci sa mbaaxug bopp la wa ma uridu an ashuqa alayk man kat bëgguma ci di la teg lenn loo xam ne ni dalay lor sa tajudi nii insha allahu min alsaalihin dang ma fekk moos bu soobee yàlla ma bokk ci gaa yu baax yi qaala zalika bayni wa baynik Moussa ne ko lool day dana nekk sama diggante wa baynaka ak sa diggante ayyamal ajalayni qadaytu fala udwana alayya bépp ci ñaari digg yooyu bu ma ci jeexal amul benn noonoo guy dox guy nekk ci sama kaw wallahu ala ma naqulu wakil yàlla nag li nga xam ne ñu ngi koy wax ni yàlla lañ ciy jël comme garantie ñu ngi noonu di ko ci sukkandikoo mbokk yonent yàlla Muusa waxtaan naa kam fekkoon ca Madiyan mu dalal xelam ñu ko bul tiit ci noonu la jànq ba ko wooyi woon ca garab ga ne ko ay sama baay kii jël ko mu nekkal la sa surga ki gën ci ki ngay jël mu nekk surga mooy koo xam ne am na kattan ca wóor na na am soxna si seede ne kattanu Muusa ci bi mu ko gisee muy root ca teen ba musul gis borom kàttan bu mel noonu ñaareel ba Moussa ba mu leen fekkee ca al ca teen ba wax ju gàtt la wax ak ñoom dimbali leen rootal leen tegu ca baat wan leen gannaaw daa ji dem loolu xam nañ ne bu doon ndawi tey yi dajeeg ñaari jànq defal leen effort am na leneen lu ciy tegu waaye da leen wan gannaaw dem bokk na it loo xam ne mu fassiru nii wax nañ ko ba ka jànq bi woosee ñuy dem jànq bi daa jiitu léeg-léeg ngelaw li yëkkati mëlfa bi lenn ci yaramam feeñ Moussa ne ko dama bëggoon nga dox sama gannaaw di ma wax fan lay jaar lii lépp soxna si seede ko ci yeneen ci yàlla Moussa mu ne ko bàyyi ku am kattan ku wóor mi ngi nii ca lool it mbokk xam leen ni mooy li jafe ci employé employé boo xam ni man na lañ koy liggéeyloo ca ko wóor la moo jafe ci ouvrier ouvrier boo xam ne mokkoon ni liggéeyam ba pare wóor lu ci bari da ngay gis ku mën liggéey lool waaye boo jëflanteeg moom ñaari yoon ñetti yoon rëcc ko walla koo xam ne mën naam wóor na waaye du mën liggéey bi ci noonu la waa ju baax ja profitoo ci Moussa ngir téye ko da ko dama bëggoon may la kenn ci sama ñaari doom yi ci nga liggéeyal ma juróom ñetti at ca loolu itamit ñu gis ci moom dafa jox Moussa lii di choix te ngallaawaay xam leen ne yàlla moo bind doomu aadama ci mu bëgg a tànn looloo tax ba nit ki lu mu mën a doon ki nga xam ne da koo tànnal boppam ci soxna. des fois du yem mukk ak ki nga xam ne dañ la koo imposer rek may la ko noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mënoon na ko wax rek ne sama ñaari doom yi may naa la ko mag ki wala may naa la rakk ji déedéet daf na ko tànnal jëree Moussa am la nga xam ne mooy choix ñaareel bi tamit mooy can gi ngay canee soxna yi mooy dañ may liggéeyal juróom-ñetti at loolu moo taxit mbokku can mën na nekk espèce mën na nekk effort benn waay ñëw na benn soxna ñëw na ci yonente bi alayhi salaam ne ko may naa la sama bopp ci loo xam ne moom rek la ko yàlla daganal yonent bi sëgg wuyuwu ko benn góorub caamin jóg na ko ah yu mu yàlla yónni boo ci amul soxla teg ma koo may man mu ne ko ah yow waaw loo am mu ne ko ah ci gàttal daal ah dëgg dëgg nag yoruma dara lu ma mën a joxe cat waaye nag mokkal naa saarteel ak saarteel mu ne ko demal nga jàngal ko loolu nga mokkal ci alxuraan muy canam kon loolu mu ñu nekk effort ñaareel bi itamit mbokk mooy can mën naa jiitu sëy sëy mën naa jiitu can looloo tax yonent ci yàlla Moussa ngi mais nañ ko soxna waaye xam ngeen du toog juróom-ñetti at doo ko ànd ak soxnaam kon can gi da koy joxe nànk nànk bu baax juróom-ñetti at yi di mat loolu lépp kon lu mën a nekk la ci can mu ne ko nag can gi mooy juróom-ñetti at soo ci dollee ñaari at it loolu sax mbaax la te loolu suñu borom yàlla mi ngi ñu koy bàyyiloo xel wala junaha alaykum fi ma taradaytum bihi min baadil farida dara amul ci li ngeen di gërëmante gannaaw farate bi loolu mbokk tey da ngay ñëw di labat soxna ñu ne la da ngay indi cent mille wala deux cent mille waaye nga la waay boo joxee cent mille wala deux cent mille bul jël nag sa loxo dagg ci sa poos léeg-léeg jëlal dara jox baay jël jox yaay jox nijaay te mooy di am leneen loo xam ne da nga koy def nga xam ne lii sax coobara la ba waa kër gi xam ne yow mii kat seen doom ji bëgg nga ko looloo tax liñ la tegoon sax yow teg nga ci loo xam ne ni ëpp na loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mun na ko nag da nga ma fekk ma bokk min salihin te loolu itamit di lu jara bàyyi xel mbokk ngalawaay boo amee ku lay liggéeyal mbindaan la ab ouvrier la employé la kum mën a doon ngalawaay bokkal ci gaa yu baax yi jàpp ko jàppin bu rafet jaamul yàlla ci moom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ba moom liggéey bi mu yëg ne lii kat nekkul luy suufe ci moom mu yëg ci boppam yëg ne ñii may liggéeyee kat ñu ma bëgg lañu ñu ma fonk lañu loolee wallahi boo ko doon fay vingt mille francs jox ko respect moo gënoon nga koy fay deux cent mille gànd ak di ko toroxal sa tëj di nii insha allah min as-salihin lu ma digganteeg yow it danaa ko matal Moussa alayhi salaam ne ko waaw kon d'accord léegi loolu sama diggante la ak yow bépp dig bu ma matal imma juróom-ñetti at yi wala fukki at yi amul benn noono boo xam ne dañ ma ca noono waaye loolu it ñu bàyyi ci xel ne mbokk jabarit dañoo war a fexe nit yi def ca lam man bari na sëy yuy tas léegi li ko waral mooy yombal guñ ko yombal suñ mag ñi rawatina boo demoon lu mel ne Saalum bala ngaa yu jël sa jabar da nga bay da nga nooraani da nga nawetaani da lu ne daañ la ci laaj mbokk kooku boo ko jëlee da nga ko fonk ndax da ngay xam ne bu ma ko bàyyee balaa ma am keneen damay son waaye ndakaaru li xew ndakaaru tey da ngay dem kër sëñ caam rek mu laa man nag ah bëgguma tànk caaxaan bu dee daal da ngay bëgg soxna yónnil say mbokk nga dem lijjanti cinquante mille wala cent mille jox ko ñu ñëw may la soxna wóor na la fàttaam bu ma ko fase it maram caam yi ngi ñuy taxaw da ngay fase def sa yoon waaye mbokk ab sëy boo ca sonnee xam nga ne Moussa fukki at nga sàmm ko doo ko am soxna soxna soosee da nga ko fonk loolee ko nit doomu aadama bi li ñuy bañ mooy nit ki bu ko teg lu mënul waaye kuy takk soxna da nga koy def alal loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ndax loolu mooy tax mu fonk ko mu ne ko lu ma mën a def ci ñaari dig yi noonu du am ci man yàlla nag la ñuy seedaloo suñu mbir mi te loolu it mbokk mooy séedi bi gën a màgg ay doomu aadama man nañu ñeente contrat suñu borom ne nañ ko seydaloo waaye xamal ne seydi bi gën a màgg mooy kóolonte ca yàlla tax te loolu it aka bari da dem ci benn waaye abal ma un million kenn fekki wu ko mu wóolu la ci yàlla tax loolee yonent bi alayhi salaam nee na bokk na ci ñi yàlla di dàggasanteel yowmal qiyaama képp koo xam ne dafa jëflante joxe kaddu goo xam ne kaddu gi yàlla la waa ju wóoloo ko ci kaddu yàlla googee ba pare mu war ko yowmal qiyaama du dagg santeeg waa ji yàlla lay dagg santeel yal na yàlla musal ñu ci dagg santeeg yàlla yowmal qiyaama kon mbokk loolu mooy la nga xamee ni suñu ñaareelu épisode ci qissa Moussa bi alayhi salaam incha allah bu ñu fi yàlla dellu see ca àllarba ji di ñëw daañ continuer ci qissa boobi yal na yàlla boole ñu ci ñi gëm ay yonentam yàlla wërsëgal ñu ñu jukkoo jukkooy ay yonentam yal nañu yàlla boole ay yonentam ca firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax li waaju baax ji wax Moussa can gi ngay cane sama doom mooy juróom-ñetti at ngay sàmb soo ko mottalee fukk nag loolu sax mbaax la ndax daan ko yemelee ñi nga xam ne dañ naan booy jëndi teewu temps la booy leb temps la loolu moom ñaari attale yu bokkul ndax Moussa moom ab sëy bi da koy takk léegi waa ji kay dana ko can gi farate gi mooy lii boo ca dollee leneen nag nga xam ni loolu mbaax la goo ci bëgg a dolli te moo di ne waa ji mi ngi mébét pour Moussa gannaaw juróom-ñetti at yi mu tegal ko ci ñaari at te loolu it comme ni ma la ko waxee rek day nekk luy gën a rafetal ab diggante moo tax suñu borom bàyyiloo ñu ci xel ci wàllu googee waaw naam waaw waaw ala kulli haal njaay googe borom xam-xam yi dañu ci am ixtilaaf comme niñ ko jàngale woon ci risaale bi mooy bay'atani fil bay'a fi bay'a wax ñaari prix ci njaay am na ñoo xam ne ni dañ ko araamal mutlaqan doonte ne ne am na ñoo xam ne dañ ni mooy buñ ko léeralul la waaye buñ ko léeralee loolu dara niwu ci man kat damay jaay masque bi kuy jënd teew deux cent la ah ku koy leb nag ba semaine prochaine wala weer wu dee trois cent la waa ji ñëw na lebal ma nga lebal ko ko muy trois cent ki ñëw na jaay ma nga jaay ko muy deux cent ku nekk ñu leeral la si mbir loolu dara néew ci la ñu cay bañ mooy ngeen teqali ko mu ñëw rek jël teqali ko fekk ñaari prix yëpp mi ngi aju xamuñu leb la xaw mu ñàkk leb am na ñuy firi it bay atani fi bay am mooy li ñu tudde bay ul ina mooy waa ji nga ñëw lebal ko masque bi ci trois cent mu wëlbati ko jaay lu ko ci deux cent su ko defee yow nga jox ko deux cent mu yoral la trois cent ala kulli xaal ixtilaaf da ca am ca borom xam-xam yi donc duñ mën a dogu mukk ci ne lu xaraam la wallahu subhanahu wa taala alam naam ah bismillah naam naam ndax ndax xam ngeen lu mu wax mu ne waaw mu ne ah imam yi de seen rôle moom wax nañ ko sànq waaw ala kulli xaal la chaque ne mooy dine ne suñu borom daa santaane jigéen ñi ñu muur seen awra looloo tax yonent yàlla Muusa gis ngeen ci ngelaw li di yëkkati awraam sax mu ne ko dama féete gannaaw te boo demee illa ma zahara minha ko mel ibnu Mas'ud noonu la koy firi mooy jigéen dafa mu war a muur léppam illa ma zahara minha mooy loo xam ne tayu ko mu génn wala ngelaw génne ko waaye dafa war a muur léppam mi ngi noonu doonte ne ne am na ñoo xam ne dañ ne mën na génne kanamam ak i loxoom doonte ne loolu moom beneen beneen mbir la amaa bu dee président président dafa war a teg ci réew mi li li neex yàlla président dafa war a xam ne jaamu yàlla la ñim jiite ay jaamu yàlla la kon la yàlla santaane ne nii laa bëgg samay jaam mel ko président loolu moo nekkoon waru garam ci mu ne a fexe leen ba doxal neex yàlla masalan président tey bu ñu gisee ne corona day lor xëy na benn guddi rek décrété ne tey à partir de huit heures bu kenn génn ci këram di fekk fekk ngeen looloo gars yi huit heures bu kenn génn këram ku génn policier yi jàpp dóor ba ngay bëgg a dee yéen ñëpp yéene ko fekkee gis en direct télé policier yi nekk fi ci tali bi ay kilifa yor seen oto yu rafet ñu jàpp leen di leen dóor ndax président neen bul génn huit heures ngay génn huit heures gis ngeen bañ demee ba mu neex ko mu di di décret boobu ko ñit président bu jëloon décret ne tey jii xale bu jigéen bu génn muuruwul duma leen ko bu subaa ñëpp muur mi ngi noonu waaw bismillah waaw mi ngi noonu waaw ala kulli xaal mbokk bi waaw bismillah naam waaw waaw loolu ñëw na ci ay hadis loolu ñëw na ci ay hadis mooy nit ki lañ ko lebal daal di bindal tuyaabay loolu ba ba dat ba di ñëw ko dat ba ñëwee sax dañ koy double ñëw na ci yeneen riwaaya yi wax loolu loolee ko mel ne ay Cheikh Nasir Albani bokk na ci hadis yu wéral wallahu subhanahu wa taala alam ndax moo tax lenn ci ku mel ne ay xasanul basri ak ñu mel noonu dañ doon wax ne leble moo leen gënal sarax ndax ki nga sarax moom yaa yëkkati rek sarax ko ki ngay lebal nag daa jaaxle ñëw nga xettili ko ci xettili mbokk julit loolu ci tuyaab yi gën a màgg ca la bokk ala kulli xaal ñaar yëpp bunti yiw la wallahu subhanahu wa taala aalam wa ala kulli xaal mbokk bi dafay laaj naan lan mooy différence ci ni déjà laaj ne ndax julli ci yonent bi ndax wareefu la am du wareef borom xam-xam yam nañ ci ixtilaaf am na ñu ne wareef la benn yoon ci sa dund nga def ko ndax suñu borom moo ko santaane yaa yoon zina am na sallu alayhi am na ñu ne wareef li ci julli gu ne nga def ko mu ne nag lan mooy différence entre farata ak wareef fard mooy waajib boo déggee ñu ne farata la mooy waajib la da nga ko war a def boo ko deful da ngay am bakkaar amma bu ñuy wax la nga xam ne mooy ay sunna mooy boo ko defee da ngay am tuyaaba boo ko deful doo am bakkaar amma bu dee dañ ne fard mooy waajib la boo ko deful da ngay am bakkaar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma mbokk bi day proposé it ay téere yoo xam ne nii pour buñ paree ci risaale bi incha allah ñu bàyyi ko xel incha allah dañ bàyyi xel maadaama risaale bi des na ñu ngi ñaan yàlla na yàlla tànnal ñu ci ah waaw xanaa ñu mujj ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw ah mu ne mu ne waaw suratu xasas nga ne xasas moom mooy récit c'est-à-dire que nettali mooy ay nettali quoi yoo wax loolu la mooy moom moom lay wax moo tax ñu tudde ko falamma qassa alayhi al qasas ba mu ñëwee nettali ko nettali ba xasas mooy ay jaar-jaar mooy histoire bi ngay bi nit ki jaar Moussa ñëw na wax ko ne man fii laa juddoo maa ngi bokk ci famille ay yonent wax ko fu mu jaar ak Firawna la tax mu daw ak yëpp loolu mooy récit mooy nettali ab nettali kon mbokk mi ngi noonu wallahu aalam mbokk yi yor ne nañ ñu bàyyi xel àllarba ji di ñëw ci 1000 francs yi barkeloo ci jàkka yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain